mbokki di rafetloon bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot naag si yéen kon ci xibaaru digg bëccëg bi li ciy gën a fës l'hôpital El Hadj Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès sëpp na ñaar fukki fan yoo xamante ni liggéeykat ya fa nekk dañoo amalub grève banque seen i loxo ngir sàkku nag ñu fay leen eh, seen i eh, ndàmpaay ci seen ñaxtu woowee ak xultu sut sas eh, gannaaw ba mu gisee ak kilifa yi xëy na jël dogal daal di tegandi suuf boobee yëngu-yëngal ci wàllu woowee jàpp na seen revendication yooyu euh, taxaw ci ci lu yàggatul dara ministre bi ñu dénk wàllu ko fonction publique euh, dina dellu si moom Viviane Mambassi ci engagement yi nga xamante ni euh, nguur gi def na ko ngir dakkal coow loole ca diwaanu cees accident yi ci tali bi ci diiru fukki fan gàtt gàtt fukki ni ak juróom yoo xamante ni ñàkk nañu ci seen bakkan la ca ëpp yoru kon Fatick yoru Fatick Kaolack jàpp Kaffrine loolee danañu ci waxtaan ca kanam tuuti lan moo ko waral waaye Aubin Sagna secrétaire général ministère bi ñu denk wàllu dem ak dikk bi euh, moom moo ci kon euh, fas yéene indi ay leeral euh, combat bi ñu fi dàqoon gannaaw la nga xamante ni moom moo xewoon ca dem ba Diop loole nag léegi saafara am ci jëwriñ ji ñu denk wàllu ko tàggat yaram ci boppam moo ko xamle moom ministre Matar Ba dana wax kon réglage yu mujj yi ngir nag ñu mën a amal boobe combat gannaaw ni dañuy bañal promoteur bi mu ñàkk ci lu bari wàllu tàggat yaram moom euh, débat bi woon démbit euh, des na ci euh, dellu siwaat ci kan mooy jiite fédération bi ñi koy xëccoo Mbaye Diouf Dia waaye Augustin sengoor mi fi nekkoon ak luy la mot démb ci waxtaan woo xamante ni seqoon nañ ko dinañu ci kon dellu siwaat ku ca ne ak fi nga xamante ni foofee kon nga bëgg a jëmee football bi bu ñu ci toftalee yeneen xibaar yi dana doon kon mbokki li fi jotoru see ñu fas ko yenee faram mbokk yi di leen nuyu dellu rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias tàmbale ko ak lu jëm ci euh, diwaanu Thiès wàllug paj ma fan yi bari woon ay yëngu-yëngu euh, diirub euh, ñaar fukki fan ak lu teg personnel bu hôpital El Hadj Amadou Sakhir Ndiéguène foofe ñoom dañoo bankoon seeni loxo te ji ci suba ñu génn nag ngir sàkku ñu fay leen seeni ndàmpaay Pape Mor Ndiaye di secrétaire général sous section SUTSAS foofe ca diwaanu diwaanu l'hôpital ba moo ci àddu ci micro Cheikh Anta la tirsa yi lu ñu naqari ci liggéey bi mooy façon bi nga xam ne moom la ñu administration bi yore ay service yu doxul service nan la mën a toog amul kilifa lu ëpp ay at ñu ñëw ñu waxale mu ne dina bind not intérimaire pour au moins ña fa nekk di doxal service bi ñu reconnaître que ne ñii ñoo fi nekk deful ci loolu dara am yeneen service yu am ay gàllankoor ay unité yoo xam ne fii la ñu bokk comme scanner ak radiologie mu ne dinaa jéem wax dox ba affaire bi mu sotti defu ci dara li nga xam ne mooy moom mooy gëddaam joxuñu ko ko di am chauffeur yu ñuy gérer ci biir administration bi li nga xam ne mooy condition pour nekkin bi fii bu ñu gardee du ñu lekk du ñu naan depuis deux ans ñu ngi wax ci affaire boobu kon tey dañoo jàpp ne euh, ñoom administration bi ñoo nekk ci li nga xam ne moom mooy euh, bañ a jox gëdd li xew bañ ko teg fi nga xam ne foofu la egg parce que mënuñu comprendre ñu dénk la hôpital régional nga xam ne gox bi yëpp fi la ñuy fajoo nga am problème ak say travailleur ubbi sa bët nga xool xam ne lii kat dañ ko war a faj mais nga tëju sa bureau ñi ñi ñëw di la wax gauche droite ngay gëm nit ñi ñi nga xam ne ñoom ñooy maladie di continuer nekk ci seeni problème ñun mënuñu kon ne di liggéey duñu ay jaam ay travailleur lañu dañoo am euh, warugar am àq ak yelleef. moo tax tamit ci beneen fànn bi ñu ngi jàmmaarloo ak gouvernement bi suba dañuy door yeneen 48 heures. lu ñu naqari si liggéey bi mooy. ma ngoog uh, ca diwaanu Thiès la woon kon uh, SUTSAS uh, mujj nañoo daje nag ak kilifa yi rawatina waa fonction publique jëwriñ ji nga xamante ni moom moo ko yor Viviane Mampassi yi xam le ni kon nguur gi am na loo xamante ni digg na ko ak syndicaliste yooyu ba tegani nañu suuf seen banque ko loxo googu ci ni seen i revendication ñu ci taxaw du ñàkk xëy na laata xibaar yi di buur ñu dellu ci ay kàddoom jaxaay ak ay jafe-jafeem ca la yàddu mouvement taxaw taxawu sama gox euh, daal di gis ni coono dëgg nag la fa askan wa di daj responsable yi gis ni ca boobee gox lu bari euh, tey ji euh, ñàkk nañu ko ñañu ca joxoñ baaraam nag weesuwul waay politique yi Ousseynou Thiam bi Radiagne. est-ce que ñun am nañ droit am ay jumtukaay nag laaj bu ni mel la lii di askanu jaxaay samp ci seen janoog taskatu xibaar yi lii di mouvement taxaw sama gox nag di ñaawlu bu baax a baax li di jumtukaay yi na muy sooxee foofu ca jaxaay te dañu seetlu ni depuis l' accession du euh, de monsieur Macky Sall à la magistrature suprême boobu ba léegi amul benn infrastructure boo xam mi ngi koy réaliser fii parce que dafay jàpp ni projet bi projet Abdoulaye Wade la dafay jàpp ni joyau bi Abdoulaye Wade moom moo fi def lu mu fi def Abdoulaye Wade la ko defal moo tax boo xoolee suñu tali yi baaxul amuñu ay centre de santé yoo xam moom la ñuy fajoo ndox sax pour ñu am ko il faut que ñu dem ba ay 3 heures du matin te loolu mënatuñ ko dund. sonn ñëpp sonn fii koom-koom tali amul hôpital amul jumtuwaay boo xam ne rek jigéen mun na koo doxee fii rek amu fii jaxaa gii quatre heures du matin la ñuy jóg yeewu di roote te nekk ay mag boo paree nga dañ dañuy wuti loo togg yaa ngi dem ba marché marché Kër Massar rek a fi am te nag il nga paas te dëkk bi neexul. mu doon ay responsable sama gox nag jàpp ne ne ñii di waay politique yu diwaan ba nag daanaka dañoo lajj ci seen liggéey. yàgg na bañ ko dalee muñ suñu boolu muñukaay dafa fees boo xoolee loolu la ñuy exprimer ci euh, bureau de vote yi boo xoolee ñi fi représenté APR yëpp ci biir chef lieu commune dañu perdre seen bureau de vote yi bokkuñ ci benn parti politique parti politique bi nga xam moom la ñu bokk mooy parti bi nga mu tuddee Sénégal monsieur le président de la république maa ngi lay wax ni képp ku lay wax ni day jël jaxaay dugal ko ci poosam wala daf la koy jox mi ngi lay nax parce que boo xoolee ñoom ñëpp seen bureau de vote xoolee chef de chef lieu commune dañ ko perdre kon loolu doy na firnde li ñu bëgg monsieur le président mooy nga defal ñu fi ay réalisation gannaaw seen sortie boobu nag waaw askan ne nag danañu wëyal lii di sensibiliser seeni ñooñ nag ngir ñu fexe ba daal jublu ci lii di développement plan jaxaay nañu sori bor yooyee Ousseynou taxaw ci euh, banlieue bi ak euh, nawet bi euh, waxtu wi ngir mag moytu mbënd mi ak yenn jafe-jafe yi am na ay mesures d'urgence yoo xamante ni jël nañ ko ci ministre délégué bi yor wàllu restructuration ak requalification des banlieues moom ci boppam moo ko xamle ay moyens techniques ay it ñoo xam ne mobiliser nañu leen bokk na ci ay sapeur pompier ngir zone yi ñu jàpp ni moo nar a ëpp gàllankoor ñu taxaw ci kàddu yi Pape Ngor Ndong Euh, ci micro euh, Salis Sow caméras Malick Diop la ñu koy dégloo. ba ñu déployé wax dëgg yàlla 2012 ba léegi le plan décennal de gestion des inondations am na lu baree bari loo xamante ne def nañ ko ci biir réew mi yépp rawatina nag fii ci ndakaaru ak ci banlieue bi am na yu ndaw yi ci des mais yi ci des aussi dañ koy jàngataat yi nga xamante ne tey mooy yi jóge ci kër yi connecté wu ci ouvrage primaire wala secondaire yi nga xamante ne def nañ ko te état du Sénégal def ko nag def ci xaalis bu baree bari yi nga xamante ne tey identifié nañ ko ci ci au niveau du territoire national waaye ci biir banlieue bi bi ñu ko identifié am na dispositif boo xamante ne jël nañ ko ci puisque dispositif boobu moom moo tax Sénégal état du Sénégal jël ay fonds spéci spéciaux xaw naa jege 2 milliards yoo xamante ne loolu rek lay jëriñ point bas yooyu déployé nañ déjà service yi sapeur pompier yi RN RN1 bi nga xamante ne à hauteur de Mbao Euh, ci weti mairie bi nekk na point baa boo xamante ne identifié nañ ko puisque ñaari yóbbu yóbbu nañ fa ñaari mission yoo xamante ne suñuy technicien ñu dem xool yan proposition lañ ñu war a def ci lutter définitivement nag ci loolu mu dakk fa waaye balaa mu fay dakk sa bu boo fa demee di nga fa fekk sa sapeur pompier bu fa déployé wu taxaw di xaar mu taw Thiaroye-sur-Mer tey am na équipe boo xamante ne demaat na fa yàggul dara ci lii nga xamante ne mooy cimetière yi Tali Diallo am na fa foo xamante ne point bala sapeur pompier it mu nga fa toog di xaar rek nga ko Papa Gorgui euh, Ndong ci mesure yi ñu jël ca banlieue ba ak euh, nawet bi wax nañ leen koy tëj ci ko xibaar yi accident yi ñuy euh, nimmiku kon fan yi ba ca mujj sax ñu koy wax démb kon ca boor yi ngaay waaye ko jiitu ca boor yi Kaolack jàpp Kaffrine ci diiru fukki fan daal mënees nañoo wax ni fukki nit ak juróom gàtt gàtt ñàkk nañu seen bakkan ca yooyee kon choc ñu am ci gan Aubin Sagna secrétaire général ministère ministère des transports euh, terrestres monsieur Sagna maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax soxna si. Euh, di rafetlu kon euh, teewaay bi ak nuñ ko ci waxee li ñu war a waxtaanee mu di tali bi c'est pas la première fois ñu ci àddu mais fan yi dafa mel ni yëf yi dafa takkar naa takkarnaase rawatina ci diggante bus yu bari ñu leen ci tudd accident yu mujj yëpp gis nañ ne bus yi dañ impliqué lan moo ko waral nawet bi wala am na yeneen point yu bees yoo xamante ne xëy na moo mën a expliquer choc yi ñu dund fan yi na ci wàll parce que boo xoolee euh, des fois défaut de maîtrise maanaam ni dawalkat bi yore oto bi la euh, boo xoolee keroog bi bis bi jógee Sédhiou amee accident mhm. waa ji dafa doon double fekk ne am na oto bu taxaw ci kanam daal di jàkkaarloo ak beneen comme kooku loolu moom défaut de conduite la ci dawalin bi la mhm. damay fàttali ne chaque fois Sénégal quatre-vingt-dix pour cent ci accident yi am ça revient toujours ci nit ki nu muy dawale bon am na aussi yeneen phénomène lu mel ni pneumatique maanaam pono yi bu nekkee dañuy yàgg kenn changé wu leen. Mm-hmm. loolu dafay andi tamit accident. alors pneu yi nag loolu moom contrôle technique moo koy gis te ñoo ngi def suñu kàttalaay kattan euh, ci euh, contrôle technique bi pour muy gën a am doole gën a sécuriser pour nga xam ne oto yi nekk ci tale bi dañuy nekk ci condition yu baax ñu mën a yóbbu yóbbu nit ñi ñu dem ak dikk ci jàmm. voilà mais euh, damay. la ci ëpp nga ne ci ci comportement euh, nit ki la wax nañ ko ñaari accident ci boori euh, Fatick beneen fële démb bi ci mujj ci ci booru fële kon ca Ngaay benn mhm. bis boo xamante ne tam dafa këpp. am ñu ci faatoote ci saa si. Mhm. bilan bi boo ko doon xool ci ci weer yu mujj yi. dañuy delloo ci ginnaaw parce que boo xoolee premier trimestre ren. 2017 janvier ba mars trois ñetti mois yooyu ñoo ngi am 186 morts. ci ñetti weer yooyu ci tali bi léegi ci ñetti waaw maanaam euh, téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-benn nit ñu gaañu. Mhm. ñàkk seen bakkan ci tali yi. loolu moo aral moo moo andi le 16 mars ministre des infrastructures Mansour Elimane Kane daal di jël ay mesures dogal 10 fukki euh, dogal yoo xam ne. dañ ko jëbale gouverneur yi sous-préfet ak préfet yi pour ñu utiliser ko pour mën a wàññi euh, li nga xam ne nit ñoo ngi ñàkk seen bakkan ak ñii di gaañu ci tali yi ñun suñu bopp ñu daal di def tournée dem nañ ci région yi lu mel ni euh, Tambacounda Kaolack Kaffrine et cetera pour ñaax gouverneurs yi ñaax force de sécurité yi ñu gën a accès euh, contrôle bi ci sécurité routière bu ñu ko defee am nañu ay résultats parce que immédiatement mois d' avril 18 Euh, décès moo am. mooy fukk euh, ak juróom-ñett ci en moyenne li ñu daan am ay cinquante décès deuxième trimestre de cette année maanaam euh, ñetti weer yu topp mars. Mm-hmm. boo xoolee avril mais juin ñoo ngi toll ci fu juróom-ñett fukk ak juróom-benn ñi ñàkk seen bakkan bakkan maanaam wàññi nañu téeméer par rapport ak. premier trimestre. mais ça reste énorme aussi. ça reste énorme et quelques ci ci ñi diiru ñetti weer lépp ci kaw tali bi. oui madame en général dañuy am ay six cent morts ay quelques ci tali par an euh, malheureusement les morts par an sur les routes mënta ñàkk malheureusement parce que euh, on conduit euh, dans des conditions difficiles. amul benn dëkk ci monde boo xam ne <laughs> amul accident de la route waaye suñu devoir état mooy fexe ba. accident yi ñu wàññeeku bu amee tamit nit ñi bañ a loru euh, loolu mooy devoir état bi te loolu nañu nekk di liggéey. mais est-ce que fan yi li li fan yu mujj yi li ñuy gis du du yàq euh, xayma yi buñ continuer ci rythme boobu parce que nawet bi day gën di tar yenn zone yi xam nañu ndox mu bari dafay wàcc tali bii dina gën a yàqu ci yenn gox yi donc est-ce que du yàq li ngeen sumb wala ci seen fukki mesures yooyu am na yoo xamante ni euh, fas yéene na taxaw pour baare baare. gàllankoor ci mesures yooyu loolu am na mooy déjà oto yi seen conditions yi. xam li andi bu tawee auto di këpp mooy pneu yi baaxul wala adhérence mu war a am du ko am wala visibilité bi par choc bi pare-brise bi euh, visibilité bu mu war a am du ko am loolu nag mooy liggéey contrôle technique alors ma jox la ay chiffres entre juillet ak aut fu may waxee ni yow fu may wax ak yow nii juillet et août 27 morts moo am ci tali yi. donc ça peut paraître extraordinaire parce que am na ay accidents yu spectaculaires mais euh, ci statistique yi nga xam ne ñun moom la ñu liggéeyee. Euh, phénomène bi euh, daanaka. moo ngi wàññeeku nombre de morts yi sur les moo ngi wàññeeku maintenant c'est vrai avec la médiatisation avec le caractère maanaam accident yi nu mu méttee dafay spectaculaire nit ci di ci wax c'est vrai dañu war a def parce que ñun lu ñu gënal bu mu am accident accident ñàkk bu mu am loolu mooy suñu liggéey. mais est-ce dañu dem ba Aubin xëy na yëf yi bari jéggi dayo ñu naan ay 600 ba xëy na boo déggee 27 wala 30 da nga koy banaliser wala 80 jàpp ne mi ngi wàññeeku mais tamit dafa bari diggante ni nga ko waxee juillet ak août déjà 27 mois euh, te te août bi jeexagul yàlla na fi yem xëy na sax euh, du ñàkk yeneen choc yi mais tamit dafa bari quand moom la ñuy ñaan moom la ñuy liggéey mu yem fi bu mu ëpp lii mais damay rappeler rek ci 3 premiers mois yi 186 morts ci 2 mois yi 27 morts. ñun suñu li nga xam mooy suñu yéene moo tax ñuy liggéey gudd ak bëccëg ministre Mansour Elimane Kane ci liggéey mooy mu am zéro mort mais c'est difficile de l'avoir pourquoi parce que oto yi parc bi euh, toll na fu mu vétusté bi nga xam ne euh, dafay am des défauts technique mais je reviens encore une fois di wax ni nit ki nu muy dawalee mooy indi les morts là. parce que da nga gis oto bu gaare nga ñëw di duble en deuxième position wala sa oto baaxul doo ko xol bu baax bara nga jël départ wala mu taw yaa ngi accéléré di xëll fekk ne euh, da nga war a wàññi sa vitesse parce qu'il pleut les conditions amoo visibilité bu war mais ñun lu ñu doon liggéey. mais ci fukki mesure yooyu tey jii. lan ngeen ci appliqué gul parce que euh, xëy na c'est le fait de l'homme am na yu ngeen ci jëloon ci wàllu permis yooyu euh, pour contrôle yi pour xëy na euh, wàññi ko fan ngeen toll ci application. di mesure madame gouverneur des régions ak ñun ñi ñoo ngi appliqué dix mesures yëpp benn desul. moo tax mu am effet yi parce que wàññeeku na je le répète encore une fois accident yi wàññeeku na mais doyul. dañuy continuer li nga xam ne defoon nañ ko tournée ñu doon def pour gën a jàppale gouverneur de région yi ak préfet yi tournée yooyu dañ ko recommencer euh, li ñu daan dooleel police ak gendarmerie ñu gën a farlu ci contrôle bi daañ ko continuer dooleel dinañu gisaat encore ci terrain bi dinañu gisaat ci sensibilisation ci communication mais contrôle technique euh, jël nañu suñu matuwaay ba nga xam ne contrôle bi dafay serré koo xam ne otoom jagul doo mën a am sa visite technique am na ñoo xam ne dañu daan daw dakaar dem ci région yi dafa wuti visite technique mesure yi nga xam ne jël nañ ko dafay empêcher loolu koo xam ne Dakar nga immatriculé dakaar ngay defee si contrôle technique. Mm. am na oto yoo xam ne boo leen xoolee soxna si nga xam ne vraiment kii warul mën a daw. Mm, koo xam ne loolu parc bi yi ci nekk instant yi euh, te dalul xel la ngay laaj sax naka lañ def ba am këyit. Euh. mais léegi euh, loolu mooy liggéey contrôle technique koo xam ne oto bi baaxul mënoo war a am contrôle technique malheureusement fu ñu toll nii. contrôle technique. ça va dina am temps balaa ñuy génne ñooñu ci. waaw non non dañu leen di génne automatiquement am na vitesse boo xam ne bu ñu xoolee oto bi baaxul dañ koy génne contrôle technique moderne na ci biir Dakar parce que on a le centre de contrôle technique à Dakar ba ñoo ngi koy yaatal di wut beneen mbaaw bu soobee yàlla ñoo ngi ci liggéey ba nga xam ne def nañ contrat bi ñu mën a ubbi beneen mu mën a jàppale bii nekk aan mm. parce que dafa congestionné à terme ñoo ngi liggéey ci second centre contrôle technique bu mag bi mi xam ne ñoo ngi koy def ci mais léegi dañ koy généraliser. parce que daf nañu contrat ba nga xam ne contrôle technique moderne dafay am dans toutes les régions du Sénégal nga xam ne ni ñu contrôler Dakar moom la ñuy contrôler dans les régions ba nga xam ne kenn dootul am intérêt di daw Dakar di dem à l'intérieur dafa def contrôle technique foofu parce que ba léegi contrôle technique bi dafa visuel mais am na yeneen mesures yi nga xam ne dañ koy jël mooy euh, li ñuy euh, def nañ communication récemment bu ñuy def contrat bi nga xam ne moom mooy contrat modernisation des titres de transport. Mm -hmm. numérisation modernisation des titres de transport mooy permis de conduire carte grise ak yooyu dañ koy moderniser ba nga xam ne kenn dootu ko mën a falsifier mais aussi pour nga am permis ñoo ngi ciy liggéey parce que nu mu amee dëgg la xaw na yomb parce que chaque fois dina am nit buy wax ak nit. loolu xam nga lu bëri dina ci liggéey mais est-ce que du jëlul temps trop. non dafay jël temps parce que xam nga nag liggéeyu état euh, bëgg nañu mu gaaw mais dañ koy def ci organisation ci législation. ak ci méthode des nit ñi ko war a liggéey ñoo matul carrément wala. non par exemple ci li nga xam ne euh, contrôle bi ñuy ñuy def euh, wala kii pour passage permis de conduire. Mhm. pour éviter nit di toog ak moom di wax ay mbir di ci duggu dañ koy def informatique nga xam ne boo ñëwee ngay làkk wolof wala ngay làkk joolaa wala séeréer machine bi laaj la nga tontu du nit moo lay moo lay kii machine boobu moo lay laaj nga tontu bu nekkee baax na mu jox la nga am permis bu nekkee baaxul mais loolu fan ñu wuti technologie bi dañuy dem ba Maroc fu mu toll nii am nañu benn contrat bi ñi nga xam ne signé nañ ko ak marocain ci coopération Sénégal Maroc mm-hmm. ba ñu mën ko appliquer et très rapidement Euh, dina dina dugg si Sénégal ba nga xam ne booy am permis conduire dina fekk ne yow vraiment xam nga ko de la route. mais machine bi egseegul. non egseegul mais ñu ngi ciy liggéey parce que loolu ay paramétrage la. informatique la technicien marocain yaa ngi ciy liggéey ak suñu technicien yi bu soobee yàlla dina egsi du yàgg mais li ma la doon wax sànq mooy modernisation des titres de transport. Mhm. ak numérisation. loolu projet bi nga xam ne signé nañ ko ki gagné marché bi commencé na liggéey. Euh, marché bi moo ngi war nañ ko approuvé mais vraiment signé nañ ko ministre joxe na 6 mois pour ñu mën a commencer produire pièces yooyu te bu ñu ko produire lan lay andi mooy permis à point bi nga xam ne ñoo ngi koy wax. permis à point koo xam ne yow dawaloo bu baax sa dawal rafetul dañuy wàññi sa permis sa gars yi d'accord ci en face euh, yéen a ngi am ay yoo xamante ni ñu ngi leen di xaw a ñoom it di di dëkku ci façon yooyu mais soxna si Sénégal il faut ñu xam mënul mënuñu dañu naan chaque fois ñiy gaañu dañu bëri ci tali bi ñiy dee dañu bëri ba pare ba ñun nañu bu leen génn ay matuwaay pour wàññi. mais xam nga mooy problème bi fii yàgg nañ fi def ay annonce gis nañ fi bi ñu fi waxee taalibe yi dañ leen fiy génne nangam sangam euh, yenn sëriñ yi génn wala yenn borom daal ñu daal ci xaw a mel ni lu tegaat tànk dañuy bañ mu ëllëgee tam nit ñi di dee ci tali bi ñu ni nii syndicalistes yi taxaw ngeen daal di xaw a taaxirluwaat parce que xam nañ syndicat yi ci seen <laughs> mënin ci seen wàllu xeex euh, état yenn saa itam du dem jusqu'au bout de ces euh, ci mesures yooyu nga ah, xamante ni ministère des infrastructures et des transports mesures ñu jël mooy di mesures yi ak yeneen yi ñu jël ñun lañ koy appliquer mais nag ci waxtaan parce que syndicats yi tamit c'est des partenaires da ngay waxtaan ak ñoom am na nooy expliquer daañu comprendre parce que ñoom tamit euh, bëgg nañu askan gi oto yu yu yàqu ci accident yi seen alal la. ñii am na chauffeurs yu ci gaañu il faut le dire y a des chauffeurs xam ne dañuy ñàkk seen bakkan loolu kenn bëgg ko moo tax ñuy waxtaan ak ñoom gën a yaatal waxtaan bi expliquer ba ba ñu comprendre ba ñun ñëpp ñu ànd d'accord méngoo mhm. daal di def suñu permis à point ci ci ci ci jàmm mais permis à point dama koy rappeler c'est une décision du chef de l'État Macky Sall ñun nag suñu kilifa bu ñu nee def lay permis à point parce que moo baax ci réew mi ah dinañ ko def bu soobee yàlla. yokk sensibilisation bi tamit waxaat. Euh, daw ndànk formation bi parce que permis à point dafay ànd aussi ak formation des conducteurs madame c'est pas seulement les chauffeurs. ñun suñu statistique lu muy wane ne c'est pas seulement les chauffeurs professionnels qui font des accidents ñun ñi nga xam ne dañuy yor ñu oto di dawal ñun particulier dañuy def ay accidents. Mm-hmm. mais ñun tamit bokk nañu permis à point ça nous concerne de chauffeur professionnel yi kese bu njuum du affaire syndicat kese ñun lan la ñu bëgg tali yi baax. te kuy wax dëgg xam nga ne ñoo ngi def suñu kàttalaay kàttan tali yi di gën a baax Sénégal. bu ngeen yokkoon lumière bi tam dina baax boo duggee ci àll bi lëndëm lëndëm buñ la dooree yenn faar yenn saay faar doo xam sax. foo foo fooy teg sa tànk mais soxna si euh, tali yi nekk ci àll. en rase campagne mënoo fa nekk di fa def ay. mais yenn zone yi sax rase campagne yenn saa yi péage bi mën nga fi dugg wala yenn zone yi mu lëndëm soxlawul sax xuus ci biir dëkk bi donc ah, foofu tam état war na fa def ay effort xëy na bu gënee leer dina jàppale gars yi. effort kañ ñun pays sous développé la ñu dañuy yokk rek te yaakaar naa ne gars yi gars yaa ngi gis jéego yi nga xam ne ñoo ngi koy def ci effort yi vraiment sénégalais yaa ngi koy gis mais dañuy ànd ñun ñëpp ñu nekk des citoyens parce que ñiy gaañu ci tali bi ay sénégalais ñu duñu doomu ministre diw duñu mbokk ministre diw c'est des sénégalais ñun ñëpp ay sénégalais lañu ku ci ne am nga mbokk am nga xarit am nga ànd jàmb boo xam ne euh, gaañoo na ci tali bi wala ñàkk na bakkanam loolu la ñuy éviter liggéey bi loolu kese la nañ ci ànd nañu liggéey te li ñu daan def def tournée di sensibiliser def tournée di sanctionner parce que ñun dañuy sanctionner oto bu normal dañ koy génnee ku amul permis di dawal dañu lay jàpp jaaral la ci yoon koo xam ne dawaloo dawal bu normal amuloo assurance gis ay cadres yoo xam ne dañuy dawal amuñu assurance soxna si loolu yëpp dañ koy xeex te duñ ci am benn recul duñ ci ragal kenn. parce que ñun nguur gi la ñuy liggéeyal sénégalais yi la ñuy liggéeyal loolu vraiment kenn du tax ñu euh, euh, bi wàññeeku bu baax Aubin Sagna lañ doon dalal mooy secrétaire euh, général ministère des transports terrestres monsieur ma dellu rafetlu teewaay bi. jërëjëf soxna si gërëm ko kon bu baax moo doonoon gan gi ci xibaaru digg bëccëg bi Morolan la ñuy daal di wutali fële la kon ca Tivaouane ak résultat yi bu ñu koy xool mënees nañoo wax ni ni du benn boo xamante ni euh, résultat yu gën la jafe-jafe kon lu waral euh, gone yi euh, duñu ñu àggale njàng wala tolof-tolof yi ñu fay dundu ba tax na xëy na résultat ya gënut Cheikh Anta Diop Latir ñoo ci dikk Morolan musuñoo am ay résultat yu baax ay at ngi nii lu jëm ci wàllu BFM ak baccalauréat résultat yi nga xamante ne am nañu ko ren jii baax na lool bu ñu sukkandikoo ci kilifa yi dëkk bi. depuis daaw moom mu ngi constaté ni résultats yi mu ngi jëm kanam mais daaw desoon na mais bu ñu defee daaw maanaam évaluation bi maanaam xayma at bi donc gis nañu ni wàllu certificat bi résultats yi desoon na ba léegi. donc wàllu brevet tamit desoon na ak bac bi mais gis nañu ni par exemple bac ak brevet moo génnagum mais musuñu woon am 50 pour cent ci wàllu bac mag ren am nañu pour cent ak lu lu brevet bi tamit daaw ñoon am pour cent ak yooyu ren maanaam téeméer boo jël juróom-benn fukki yi am nañu brevet loolu dafa wane ni maanaam résultat yi ñu ngi gën a jëm kanam. ginnaaw bi ñu doon périer lu toll ci téeméeri ndongo ak ñaar fukk ñu am ay résultats yu baax maire bi nag yëkkati nay kàddu wax ne nag dañoo laloon ni pexe ngir fexe nag ba Morolan am ay résultats yu baax. enseignants yi dañuy def ay cours de renforcement altine ci ngoon alarba ci ngoon ak ajuma ci ngoon loolu tamit ñu ba maître yooyu neexal pour que ñu mën a def liggéey boobu. dañoo bëgg suñu doom yi fa ñuy waxee concours général. wala fa ñuy waxee Mariama Ba wala fa ñuy waxee prisonnier militaire suñu doom yi tamit dem fa loolu moom dañu ko loolu liggéey boo xam ne dañ ko war a def à la base di continuer di sensibiliser ñëpp acteurs yi yëpp pour que ku nekkee maanaam def cëram ku ne bu defee cëram am nañu yaakaar ni résultat yi dina àgg foofu. kuréel gii ñuy wax centre africain de complémentarité scolaire ak universitaire Cap Sud ñoom dikk nañ ci Morolan ngir jàppale ndongo yi ama programme boo xamante ni ci diirub juróomi at daañu ko jàppale waa Morolan ngir ñu gën a suqali njàng mi ci gox. ma ngoog daal di yàddu ca leneen boori Sigicoor la ñuy wutali ak uh, faluk député yi ñu génn Abdoulaye Balde nag moo ca yëkkati ay kàddoom moom tête de liste nationale coalition kaddu askan wi ab janoo la ca seq ak waaye taskatu xibaar yi uh, doon def bilan ca yooyee législative uh, jéggalu it ay militant am ca gox yi nga xamante ni perte na ko foofu waaye xam na ni loole du yàq dara ci ndëm-ndëm li mu bëgg a sampatum 2019 ngir xëccu ji présidence Boubacar Dia Sy Lamine Moñan gannaaw bi mu nangoo ni ñàkk na législative yi ci département bu Ziguinchor ki jiite liste nationale coalition kaddu askan wi sàkku ci ay militants am ñu daal di ko baal. par insuffisance jotuñu am app bu ñu jàppoon ndaxte amuñu xaalis bu doy ak matériel bu doy waaye it amoon na ñàkk déggoo ci suñu biir boobu nag kenn mënu ko bañ jàpp naa ni bu ñu jëlee diiwaan bët sàllum réew mi li ma toogee lu yàgg ñëw ma fii ci biir campagne bi tax na lu bari sooxee fii nii maa ngi wax ni man mii maay responsable bi tey ñaan jéggal képp kuy kandidaa ak militant parti. j'en assume la pleine responsabilité. et je m'en ne loolu wàññiwul dara ci bëgg-bëggam bii di jiite suñum réew. ça n'entame waaye loolu wàññiwul dara ci sama bëgg-bëgg samp sama ndënd ngir doon président Sénégal te wéyal liggéey bi ci biir réew mi ak ci bitim réew. national xalaat ci njort mi ñenn am. ni Macky Sall mën na kaa tallal loxo. sur la deuxième question. Euh, su may tontu ñaareelu laaj bi maanaam suma ma Macky Sall tallalee loxo mënuma fi wax waaw mbaa déet suñu bëgg-bëgg ci biir parti bi moo ñu am suñu kandidaa bopp 2019. parti c'est de présenter un candidat en Abdoulaye Baldé daal di joxe nataalu assemblée bu bees bi. bu kenn xaar assemblée nationale bu wuute ak bi fi nekkoon. ndax opposition bi bareewu fa. ndax ñeent fukk député dong lañ ci am. ci téeméer ak juróom benn fukk ak ñun daal lu ñu gëm mooy fii suñu système électoral kenn soppiwu ko coppite yu ñëpp bëgg ci assemblée nationale bi kenn du ko dund ndaxte nan la xel mu nangoo coalition bi am ci wàllu xob ñeent fukk ak dong ci téeméer boo jël mu daal am juróom juróom-ñaar fukk ci téeméer boo jël ci wàllu député. 76 président bu UCS e joxe rendez ay militant alxamis bi ngir ñi bokk saytu élection yu fanweeri fan weeru juillet bii ñu génn. ci yooyu élection nag bëgg am ñoo xamante ni dañoo taxaw ngir daal di euh, dugal ay recours ñu neenal ko rawatina kon fële ca diwaanug euh, Touba euh, recours yooyu kon naka lay demee conseil constitutionnel am na juróom-benni fan ngir daal di cay yàddu ci li tax nag mu d'accord ci annulé wot ya ca yooyee béréb Ibrahima Kane Mohamed Dieng ñoo ci taxaw. vote gi ndax dinañu ko neenal ci yenn gox yeeg goxaan yi ni ko yenn coalition yi nag bëggee gannaaw ba ñu saisiré juge constitutionnel bi ndogal bi nag kon conseil constitutionnel lañ ci xaarandi moom mais nag dina ci àddu. loi dafa ne bépp parti politique ak bépp coalition politique euh, am nga sañ-sañ pour bokk ci ay jongante maanaam ci ay élection léegi mënoo bokk ci élection ba noppi nga dem ci benn bureau de vote boo xam ne bii say xob nekkuñu fa. là c' une violation flagrante bu dee loolu am na moom tout à fait tout, à fait parce que là c' une violation de la loi le juge dans ce cas de figure am na obligation pour annuler pour annuler vote boobu léegi nag bu fekkee léegi bulletins yi ñëw nañu te ñu mën a estimer que période bi ñëwee ak période bi nga xam ne bii euh, euh, euh, voté nañu on a pu voter de de façon tout à fait normale loolu sax mën nañ que ça c' est juge moo koy apprécier de façon tout à fait concrète c'est am te ki nga xam ne kii moo jongante say say bulletins ne sont pas dans le bulletin dans dans le bureau de vote. boo xoolee par exemple li ñu wax ay ay ordre mission maanaam xayma bi ñu xayma ordre de mission nu mu bëri ak ni ñu leen di répartir. loolu également mën nañu ci sukkandiku xam ndax am na benn parti bu bu focalisé wu ci affaire boobu pour pour laaj nañu neneel élection yi mais là également c' est quelque chose à mon tout à fait il faut de revoir ci soxal Touba ak diwaanu Mbacké nga xam ne nag coalition gagnante watu Sénégal moom moo ko gagné Benno Bokk Yaakaar ne daf cee bëri ay jalgati ba tax na sax muy laaj ñu taxawalaat beneen voté ci département bu Mbacké. tubaab dafa ne nul ne peut sa propre turpitude bu fekkee ñoo seen bopp. ils son à l'origine par exemple di ay trouble ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo nekk derrière ñoo xam ne parce que am na presse bi par le passé loolu doon relayer am na ñoo am na ay ay jéey yoo xam ne amoon na fi te ñu doon tudd tudd waa waa waa waa APR bu dee loolu moo am ñoom waruñu mën a sukkandiku ci loolu pour ne léegi nañu nenal élection yi parce que xam nañu ne Euh, foofu ñoo foofu foofu euh, diwaan boobu mooy diwaanu Touba. ñëpp xamoon na ne euh, problème yi fa amoon te ñu ngi naan nag waa ñoo ko ñoo ñoo ñoo ñoo nekk derrière. donc mënoo mënoo créer problème boobu ba noppi nag naa léegi élection yi war war war ko mën a war ko mën a avaliser. résultat définitif yu soxal nag élection législative yi conseil constitutionnel moom moo ko war a joxe wante nag juróom-ñaari sages yi am nañ délai juróom-benni fan gannaaw bi ñu leen saisiré nag ci ay recours ngir ñu neenal vote yooyu vote Ibrahima Camara ak liste yi lañ cey bari ñeent fukk ak juróom-ñaar mujj na ca am ñoom ab député euh, bunt bi euh, moo waral nag nga xamante ni moom mooy euh, Théodore Chérif Monté ma fas yéene dem ca assemblée nationale yëkki ci kon ay kàddoom bu boobaa wax na fa mu bëgg a teg tànkam waaye it liggéey ba mu fa na maamal Salis Sow Asmalik Diop ñoo gisee ak moom. dugg na biir assemblée nationale fukki at ginnaaw bañ ko taxawalee moom union citoyenne bile yoon wi guddoon na metti woon na waaye kuuteem ak ñeent fukk ak juróom benn yeneen liste yu bëggoon a dugg ci pencum ndaw réew ma lii ci la bokk. ñun euh, nekkuñ fi di sabaru nekkuñ fi di taasu nekkuñ fi di yuuxu dañ dem dajeek population yi wër nañ Sénégal yépp dem toog ak population yi fekk leen ci seen bërëbu liggéey fekk leen ci seen i biir kër waxtaan ak suñuy mbokk. ci fukk ak ñetteelu législature bi député bi nga xamante ni moom moo fa war a nekkal union citoyenne bunt bi nee na dina teewal askan wi xool bu baax raxatina dolli saytu bu wér-wér lu fa gouvernement bi di jéem a jàllale ñu ay loi député boobu nga xam ne kenn jatangu ko kenn tënk ko bu nekkee député parti wala mu nekk député président de la république du mun a def troisième rôle bi nga xam ne moom la député di def maanaam càmbar action gouvernement nañu xool ci suñ kanam bàyyi rétroviseur bi tàmbali liggéey bi. gouvernement bi fépp fu mu teg tànkam dina ko xool bu baax wala fi nga xamante ni fa la bëgg a teg tànkam li nga xamante ni mooy ay loi yu yees dinañ ko fi indi ñoom la ñu wax yeneen loi yi nga xamante ni jotoon na fee am lu mel ne code pétrolier wala loi agro pastoral jëm ci wàllu mbay meeg càmm geek yu nu mel ak loi bi nga xamante ni moo ëmb liggéeykat yi dinañ ko xoolaat bu baax indi ci ay yees yees. code pétrolier boobu 1998 lañ ko bindoon. waaye boo ko jàngatee dangay ngay defe ne ay tubaab ñoo ko bind loi bi ñuy wax loi agro silvopastoral maanaam naka la ñuy béyee ak naka la euh, càmm ji di di doxee loolu tamit dinañ ci liggéey pour décret d'application yu mun a génn am na yeneen loi comme code du travail euh, yoo xam ne ñu ngi ci doon xalaat am na nag loi yu bees. union citoyenne bunt bi am na loo xamante ni def na ko te parti politique yi ñu fi xamoon tële fa maanaam li jënti ba dugg assemblée nationale. desiwaat ca la ñu tàmbale woon mu di euh, euh, grève ba SUTSAS sumboon fële kon ca l'hôpital euh, bu Thiès seen i représentant démb am nañu kon kàddu ko gouvernement ba ci daal ni danañ taxaw seen revendication yooyu ba tax na tegandi nañu suufa li nga xamante ni moom moo di seen banque ko loxo googu ministre bi yor wàllu fonction publique dellu si ca la ñu déggu ak gouvernement bi Viviane Mampassi ci micro Moussa Ngom caméra Mohamed Dieng le gouvernement a mis disposition. li ma mën a wax daal mooy nguur gi fas na yéene jébbal ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu wér gu yaram juróomi milliards ñu toftal ñaari téeméeri million loolu nag séddale gi nii lay demee ñaari milliar dana dem ci fonds de motivation bi ñetti milliar yi nga xam ne moom moo ci des ak ñaari téeméeri millions yi dinañu ko fas yéene faye salaire contractuel yi moo xam nag fu ñu mën ci bokk jël nañu ay dogal jël nañu ay dogal jëmale tamit wéyal waxtaan wi jéem a xool yeneen jafe yi nga xam ne ñoom ñoo nekk eh, ci biir wàllu wér-gu-yaram bi moo tax eh, ci loolu dinañ amal ay ndaje eh, jàpp nañ ci ñaar benn bu njëkk dina am ñaar fukki fan ak benn ci weer wi ñu nekk beneen bi nag ñaar fukki fan ak juróom-ñaar lañ ko jàpp ba tey ci weer wi waaye boobu moom day nekk ak yaatal jëmale ci waa ministère de la santé ndax nag ñu jéem a xool nu ñuy waxtaanee tàggatu gi ba tey ci wutum jàmm googu waaye tamit déggoo niki tey ji secretaire général jëwriñ ji nga xam ne moom moo yor wàllu gi dina amal beneen réunion réunion boobu nag li koy tax a jóg mooy jéem a xool eh, jafe-jafey xaalis yi jéem a xool tamit eh, mesures yi ñu jël lépp loo xamante ni si daf ci war a ànd ak xaalis rek ñoom ñu xool naka lañ koy saafara rawatina nag wàllum heure supplémentaire yi ma ngoog euh, Viviane Mampas yaay kaddu Mbass Soumen Thioub kon moo ko doon euh, tekki daal di yegsi ci wàllu tàggat yaram ak jëwriñ ji nga xamante nii moom moo ko ŋànk nee na kon saafara am na ci euh, gannaaw la nga xamante ni moo xewoon ca Demba Diop ca match Mbour Wakaam boobu ba bakkan ya rotoon ca taxoon ñu annulé combat de lutte ba ca waroon toftalu nee na am na kon lu ñu ci liggéey ñu ngi toll ci réglage yu mujj nag ak CNG ñu tewlu ko mu indi ci ay leeral ci micro Salih Eh, ñun du ñu ñu bees ci mbir yi fekk nañu lu ne ban ONCAV di nekk benn ba muy nekk ONCAM ak loolu yëpp fekk nañu fi waaye lépp lu mu mujje mooy toog ci tour table waxtaan juboo parce que ku bëgg a jëm nekk benn mooy tax ngeen am doole ministre desport nag du moom mooy reconnaître association valable valable kuy wut kayit ministère de l'intérieur nga jëm ñun nag dafa am kuréel yoo xamante ne ñoom la ñuy àndal ci liggéey bi muy commité national olympique fédération yeeg yëpp ñiy intégré mouvement sportif ñoom am na ñu ñu intégré mooy ñi fi nekkoon di leen intégré muy fédération muy CONOSAT yooyu yëpp. la ca des nag ñun ñëpp ay sénégalais lañ ni ma ko waxee léegi am na loo xamante ne di ko jubale ci ministre de sports ñàkk xam doxaliinu réew mi la parce que boo demee ba Ziguinchor wala nga dem ba Fatick soxla stade. mënoo xalaat ne ministre des sports moo la ko war a jox parce que ministre des sports sori na li nga xamante ne moo yore yooyu collectivité locale yi ak ñañ fa affecté ñooy jël seen i responsabilité la ñu war a def ñu def ko ministre des sports li muy def mooy coiffé loolu jafe-jafe bu yegg si ci moom mu xool na leen lay gunge pour ñu trouver solution defe naa ne loolu moom mooy wax ji leneen ñu ci wax waxu caaxaan la

diggante Louis Lamotte Mbaye Diouf Dia ak euh, ki fi nekkoon mettre Augustin euh, Senghor ku ca nekkoon euh, dellusi nga ci mbiri football bi ak coow yu fi jotoon am candidat yi wan gis-gis lañu ci am Ibou Diouf moo ñu kon defal synthèse bi ca boobee débat. ñoom ñi ñëpp ay doomu Sénégal lañu ñu bokk li ñu xëccoo muy poste prison fédération sénégalaise de football ñu amal ci nag ab débat fële ca TFM ku ci nekk joxe ci li nga xam ne moo la tax jóg. ñetti mandat président de la république politiciens yi nga xam ne ñoo gën a bëgg nguur sax bàyyi nañu ko. loolu lañ la meree li nga liggéey kenn werantewu ko benn. ñaareel bi mooy ñun aussi bi ñuy waxee texte réforme texte CNF. mais xalaatuñu woon ku fi def 12 ans ki 13 ans. ce n'est pas convenable chez les politiciens ça peut pas l'être la société civile et au contraire. Ah. mais c'est que vous vous n'avez rien fait. waaw ci vous n'avez rien fait. moom laaj na ma ne ma ndax yaa moom football bi. Mhm. moomu ma ko waaye am naa ci wàll. bokk na ci loole suqali wala football fii ci suñu réew. fexe tamit bu suñu sélection yi gën a ràññeeku ci biti réew suqali football bi fii tamit ci petite catégorie. Euh, mbir mi diis na ci ñun parce que ñun waa Mbour lañu. Mhm. c'est vrai que bi événement bi demee muy bés ba ba biñ ci am ñun ay gaañu gaañu c'est vrai que président Augustin Neufone mais Lamotte ak comme dem na Mbour ñëw na. Mhm. c'est vrai aussi que jullit da nga sa aqalaay taala mhm. jour bi ñu wàccee Kaamir la lendemain. gisuma délégation fédération. li waroon surtout nga ŋànk football bi mooy sol sa dàll famille bu nekk ak ku fa ñàkk nga ñëw ne leen si leen digaale. nit da ngay dalul dal dal nga xelu même ñoom saa bi ñu nee dafa saa dafa ne man mënuma bañ a dem foofu parce que saa tam waa Mbour la ñoom gëj ñu ko nekk waa Mbour sali fo euh, ak Mbour benn la. ma ne ko ah mais na nga yëglu ba pare na nga oo ñi nga war a woo président bi oo kii ñu xam ne dangay ngay kii mu dem ba foofu. waxtaan ak nit yi ñu ne li gën mooy ñu wàññeeku ñoom ñu wàññeeku. ci bile débat jéye ji xewoon ci stade Demba Diop te ay doomu Mbuur loru ji ñëw na ci waxtaan bi ci loolu tamit ku ne joxe na ci sa gis-gis. football mënuñu ko réinventer ñun les sénégalais là c'est pas possible comme les directeurs technique direction technique dafay am am un ou deux adjoints am des chefs de département. ci pense que fondamentalement wax na ko quelque part ci ci benn dëkk nee na suñu ma dootuñu mën a am suñu poste bële à la FIFA. li des effectivement mooy le travail de terrain te loolu mënuñ ko jël lépp xëpp ko ci kaw direction technique nationale. laata ñu yegg ca cappaandaw ba ci élection bi ñu fas yéene amal ci fukki fan ak ñaar ci weeru ut bi ñu nekk ku ci nekk nag commencé def sa campagne di sàkku rek ci ñi ngànk wàllu football fii ci Sénégal. ñu wóolu la ngir jébal la fédération sénégalaise de football. maam solo kon di gindi eh, ñi ci eh, yëngu ci wàllu tàggat yaram monde du sport eh, gannaaw débat boobu niñ ko waxee démb la woon fii ci télévision Futur Média yéen a kaay yàq Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Penda Ba borom yow grand yaa ngi campagnal Macky Sall moom justice campagnal na ko ba yóbbu ca kaso ba l'observateur tax nañu moom Penda Ba di ndaw si dëkk Agnam defoon ab vidéo dugal ko ci internet bi ca vidéo ja mu ci doon tontu benn waaye dem ba ëppal ca wax ja di daggi saaga yu bon di teg ak di wax waxi kàddu yu bot di ci wàllu xeet gannaaw ba ñu ko jàppee ca sali ñax-ñaxal ga mu ñoqali ji woon te neeg Marie Louise Ndiaye bu l'observateur nee nañu ci yéenekaay bi démb la ko ba Penda woowee kaso ba fa la fanaan démb fa ñu jaarale Ulay Maane jaarale fa Baara Fall di xale bi dëkk Wakaam fa la ñu ko jaarale moom Penda Ba démb ca kanamu siis ba baalu naaq jéggalu na dem na sax bay sàkku ci enquête kat yi ngir ñu xool vidéo bu Assane juuf bi mu doon tontu waaye loolee lépp terewu ko fanaani kaso keneen ku kaso di yoot l'observateur nañu moo di waykat bii di Ami Collé Dieng ne moom it kenn demul mu des ci internet bi fa la jaare ci groupe whatsapp lu mu yekk ko Macky Sall nee na Macky Sall unku la saay saay la dafa gëmi xërëm faru wax ja teere ji ci toppee offense au chef de l'État ak diffusion fausse nouvelle tey jii la ko doyen des six bi war a déglu moom ak waa ji di Amadou Seck di manager bu Baka Niang la Sénégal nañu penda ba ma nga ca kaso ba Ami Collé Dieng ak Mamadou Seck retour parquet la ñu amee démb Vox Populi moom it xëy dëggal xibaar bi tëj nañu penda ba dañu ko mandat dépôt Ami Collé Dieng ñu delloo ko war ko indi tey jii mu jàkkaarloo ak doyen des six libération nañu article 80 bi moo leen rey ba ñu dee moom le procureur de la république génne teg ci taabal ji yéenekaay bi dañu gone ak añam gi mu di penda ba ma nga ca kaso ba kii di Ami Collé Dieng tey la ko fa war a fekki moom it mook ñi mu àndal ndungu sin la ñu jëm lu jëm ci wàllu yoon ba tey ak musiba mba bakumba ma xewoon ci stade Demba Diop le témoin nañu enquête baa ngay wéy ba moo waral ki jiite supporters yu Wakaam yi jàpp nañu ko ak benn booy buy football union sportive bu Wakaam l'observateur nañu Jibril Gueye la tudd moom suwóoru Wakaam boobee moom ak président supporters yi di ma Mamadou Timéra mën nga ñu tëyee ca police centrale la Sénégal ñu teg loxo ci mbir mi te ñu dëkk ca Wakaam ëpp nañu ñaari nit gars yi benn jàpp nañu fukki nit te ñoom ñëpp dañoo jàpp ne seen loxo génnul ca la xewoon ca Demba Diop neexi tubaab di Abdoul Mbaye mi doon jooyanti ci législatif yi ba far weng xëy na saf sàpp ci yéene kaay anki dine nañu moom Abdoul Mbaye moo ko coalition li leen dal ci wotey législatif yi du ko gaaw fàtte 14 207 am mataluñ sax 1 pour cent législatif yi Abdoul Mbaye nañu fa wote yi dafa bari woon ay njuuj njaaj ak i labaaj ndax ci ministère de gi dañu faa defoon benn centre boo xam ne militant yi benn bokk yaakaar yi kese la ñuy jox seen identité njiital acte di Abdoul Mbaye tegal ñu ci ne nañu sant Abdoulaye Wade bu baax a baax te gërëm ko ne bu ñëwul woon wàcc ci géew bi sëmbaxloo bokk ci campagne bi kon lambaay dina fi gën a ñaaw ba ñok ko Abdoul Mbaye ne donte sax ànduma ci Abdoulaye Wade ak ni mu yore woon réew mi waaye du tee ma nangu ne Abdoulaye Wade démocrate bu mag la njiital réew mi di Idrissa Seck xëy na wax ci Walf Fadjri ba ne sàyyi baaraam ya nee na Macky Sall bariwul ay soppe ci réew mi ndax 49 tojul fenn dafa minoritaire Idrissa Seck ne bu ñu liggéeyee te farlu ci def ko na mu ware présidentielle yi 2019 bu amee sens dëgg deuxième tour la ko jëmee bu ko amul nag du fa sax yegg ñu yegg si ci l'observateur xooli lay bëgg a yegg kanamu conseil constitutionnel bi leen bi élection législative yi woon fanweeri fan ci weeru sulet gaaña ñoo nga ca prolongation ya te ca kanamu juróom-ñaari suisse ya ca conseil constitutionnel fa la koy doxalee Manko Taxawu Sénégal bëgg ñu annulé wot gi woon ci Ndakaaru kàddu askan wi bëgg ñu annulé wot ga woon ci Abidjan ndax nee nañu jaarul ci yoon recours yi gars yi joxe bu sottee journal bi nañu mën naa soppi lu bari ci résultat yi ak ni mu tëddee nañu tëjee ak aji màkk gi le témoin ñe nañu yëf yaa ngi bëgg a jéggi dayoo ndax privé yi laxas nañu jaan ci aji màkk gi laxas goog aji màkk yombatul dangay yor sa juróomi million sax doo mën a dem mangoog gërëm ko bu baax Mamadou Mouhamed Ndiaye jaajëfal leen bu weer yéen ñi doon teewlu xibaaru digg bëccëg bi rédaction bi incha allah dana dellu si 19h30 20h ci yeneen i xibaar ñaanal leen ngeen yendu jàmm ak programme TFM ba ca kanam tuuti.